Elidia ubbi na centre commercial bu mag fii ci Touba quartier Daarul Tanzil muy barab bu ñuy jaayee ay produit yu wuute bokk na ci produits yi nga xam ne dañ koy transformé fii ci réew mi loole mu ciy lëkkaloog jigéen yi nga xam ne dañuy yëngatu ci fànn googu fii ci Touba Mbacké. centre commercial bi day gën a encouragé pour les femmes transformatrices sànq sax dañu recevoir ici ay jigéen yu xam ne dañu transformé donc ñu ngi signé ak ñoom ay contrat yi nga xam ne. lu ñu mun di transformer rek ñu dañ koy jël di ko di dinañ ko jël si ñoom donc dañu accompagner réellement suñu femmes yooyu ñu mun a def ay ay ay ay transformation mais également ay produits yi nga xam ne dañu koy emballé emballage yu baax yi xam ne aussi mun na rivaliser ay produits yuy jógee extérieur donc centre commercial bi nga xam ne moom la fi Elidia taxawal dafa créer ay emplois ndax ñi ëpp ci ñi nga xam ne ñoo fiy liggéeyee ci bërëb bu sell bi di Touba ci lañu dëkk. Euh, essentiel ñi fiy liggéey ay doomu Touba la. donc euh, dañu prôner réellement ci centre commercial fu ñu taxaw ay centre commercial doomu euh, dëkk boobu la ñu la jël pour ñu liggéey ci centre commercial yi. Abdoulaye Elimane Dia mi nga xam ne moo taxawal barab bi ay naataango meeram woon nañ ci inauguration bi bokk na ci Abdou Lahad Ka meeru Touba ak Abdoul Mbacké Ndaw meeru Mbacké ñoom ñëpp ñu rafetluwaat bu baax a baax li nga xam ne moom lañu taxawal ci Touba mu nekk lool bokk na ci li nga xam ne day suqali diwaan bi ci wàllum koom-koom. noonu. maanaam def ko ci dëkk bi li ñuy mën a def mooy sant ko ci turu sëriñ bi sant lii def lii Cheikh Cheikh Bassirou Mbacké def ñëw sëriñ Moussa wax ko ko ne ko bu ma sañoon nga ñaan naa la nga ñëw defal ko ñaan mu ubbi ko mu ñëw ubbi ko maanaam loolu faw ñu sant ko gërëm ko ñaanal ko d'abord war a door dem nag ci domaine économique ak euh, euh, développement économique ak sociale ak emploi bi nga xam ne def na ndax lu mel nii nga jël ko indi ko mu jël lu mat quarante personnes donc di leen employé ci réew mi loolu rek defe naa rek contribution bu am solo la ci ci ci fiscalité bi waxuñu ko donc ci développement aussi yi waxuñu ko waxuma la nag moom mi nga xam ne dafa yëngu ci mbay agriculture ndax euh, euh, participation mënul weesu jël suuf bay soble bay pomme terre bay lujum maanaam mu ñor ci réew mi nga indi ko ci marché réew mi investir lu toll nii supermarché yu toll nii te ko fi teg di jaay defe naa ne loolu vraiment réew mi amel nañ ko njukkal waaye war nañ ko jàppale te ñaanal ko. inauguration centre commercial Elidia Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadir teewoon na fi ak kilifa yu takk lool ñu ñaanal Abdoulaye Elimane Dia ci bërëb bi nga xam ne moom la taxawal ci diwaan bi ndax nekk na lool bërëb bu sell bi di Touba lu mu yittewoo la.